parce que yéen laa jeunesse tey ñi fi nekk Essal ñi fi nekk nii parce que macha allah ñëpp xam nañ ni ndaje bu mel nii bët mosu ko gis na gaaw ah. waaye dama ne ñi fi nekk ñu bëri bëri bëri bëri benn échantillon bu ndaw la ñu ci ne million de Sénégal may laaj nag. laaj leen ko Sénégal yi ànd ak ñun ñëpp nekk fépp ci Sénégal ak ci bitim réew ndax pare ngeen pour xeex Sénégalais faalewul Sénégalais Macky Sall du góor Macky Sall du naxante moo ko fi jëlee amul kenn Sénégal du kilifa diine du mouvement citoyen du parti politique du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg-bëggam moom ak soxnaam ak doomam ak ñi ànd ak moom war na nga xam la fees na jaay yàpp ba wala ñu séddoo ko moom njabootam ko jàpp jàpp li tax ko mooy moom yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam dama xeex ak Macky Sall ñu ciy def Macky Sall dina jaar suñu bopp moo tax nag bu dee pare ngeen ko seen na ngeen xam ni bii paa buñ ko dooree amoon temps am benn gannaaw xeex bi nag ay nit ay degré la bi xam ci liste yi parce na amoon naa la koy def waaye boo ba ci biir matul sax 24 jours ndax boo génnee dimanche génne fête yi matul sax 24 jours moo tax bu leen toog ba dernier moment ngeen di jóg bu ñu nee ëpp nañ ko suba dana bëgg fépp fu bindu mu ñuul ku ay nit ndaw ñi parce que daanaka ñu ngi ji. deuxième secret am na ñoo xam ne dañu doon candidat fii en 2024. Zanzibar. parce que baatu ñu nangul Macky Sall muy tànn kan mooy dem élection pour ñu dem. Macky Sall nee na te yaakaaru li dul justice magistrat yi moo waxaat leen ko magistrat yi mooy leen seen bopp parce que réalité politique. yàlla def ko ay millions de topp ci yow benn magistrat nga ne maay kenn ku nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xam ngeen ko suñu yoon ci waaye kenn nag da ngeen di jaay ni soo waxee ñu ne France restera à la loi la loi est la loi du peuple comme ça. man de naa leen wax man Ousmane Sonko damaa des ci xeex lu xeex laaj rek dinaa ko def. Khalifa Sall a wan Sénégalais ni moom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moo tax ma man institution Macky Sall faale wu ma ko. ñoom ñoo ne organe la ñoom ñooy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne moo tax Fanatalane ñu xeex ñooñu. laaj mu jàmmarloo ak yow. jërëjëf. moo tax ma ne leen sama discours bu weesu loolu la. les hypocrites yi ñoom fële naa nitu fitna la. je suis ñëw. ñu ñëw ñëw di la jaay ay. naan ñoom ñooy les républicains ak jërëjëf Moussa fi ñu toog la ñu toog naan ndeysaan. disons sax ñu ñëpp a seet. mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet. te projet bi rek mooy sauver le Sénégal. ay at juróom-ñeent at ñuy xeex. joxuñu it xaalis. sàcc ñu xaalis réew mi joxe ko. defuñu nit ñi lu amut. waaye dañoo bokk ak ay xalaat ci li war a defar réew mi jëlee fi njool ak sàcc xaalis jëlee fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko Sénégal toog jàpp mbuumu jaam bi delloo si alal réew ci réew mi seetale ko ci seetale seetale bu ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex dañ koy door ñu fukki nit di waxtaan ngeen koy gëm ba tey nekk fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi Macky Sall Macky Sall ak quelques magistrats ne ñoom ñoo am fitu ne li askan li ëpp li ëpp ci askanu Sénégal la ñu bëgg ñoom dinañ ko tax ma ne Macky Sall fi mu toll nii ci ñëpp la yaakaar mi ngi yaakaar ci ay ministre jël na ay nit ñoom xam nañu ñam ñoo recruté ministre xam nañ fi dëkk yor nañu seen i information yéen seen i forces de défense et de sécurité xam nañ ñu ngi si dëkk am na mission yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi kenn du leen dégg ñun bi ñuy wax gàtt sa gàtt sa police ak gendarmerie tax na ñu wax ko de waa après laay wax si vous avez quelque chose entre les jeunes bàyyi leen police boole wu ñu ak police ak gendarmerie lu ci ñu ne def manifestation police la di fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a de mais su dee soo loolu ñun bi ñuy wax gàtt gàtt xam nga lan la ñuy wax c'est poltron de la paire. yàlla xam na ni bu police jóge dama ne réew dafay toll à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en mais yeneen réew yu ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallahi yéen laa ko wax la jeunesse 2024 ñu soppi

ñoom xam nañu ñan ñooy les milices ñemewuñ nañ jàpp te pourtant léegi balaa ñuy commencé meeting bi jàpp nañu Kaba bii dëkk fii Parcelles Assainies police jël si na ko ngi commissariat central suba ñu xëy ne terrorisme lañ ko attaqué ñu ngay wër seen renseignement généraux naan dañoo jëlee ay nit Casamance andi leen fii ñii nekk fii yëpp waa Ndakaaru lañu waa Casamance ñu ngay manifester Casamance Macky Sall nag li ma wax du bëri dafa jeexal tak tak tak tak ñaar moo am Barthélemy wax na ko na rafetal demam ni Abdoulaye Wade demee woon Abdou Diouf demee ko mu dem bàyyi ñoog réew ci jàmm defu ko nag ah Cheikh Tidiane wax Cheikh Tidiane wax na ko de demam dina ñaaw lool lool lool dafa ñaaw lool may lancer nag un li ñu gën a am li gën a li gën a sacré ci Sénégal mooy armée sénégalaise man réseaux sociaux yi rek laay dégg te laa leen di seetaan de ñu naan non ñun xoolal géejawaay fii xoolal ñun gis na suñu fii kenn du taal ku ko nar a taal man taal rek taal naa leen local taal leen député gars yi nekkali leen président wax gëmuñ ci dara gis dara doo wax dara te def dara man daal géejawaay fee leen rek laa def su gars yi ñëwee guddi gi ne ma waa mais mbir nu muy demee suba ma ne non garaawul bàyyi leen bañ génn rek buñ génnee ma dem ba jublu benn mairie rek dugg ci biir mairie door leen ba ñuy bëgg a dee ñu porté ma plainte ma xëy jour ba sa topp waa mais mbir gars yi itinéraire bi nan la ma ne nañ leen dox rek dañuy dox di dox di dox ba ma romb buntu kër directeur dafa ciix bombardé leen door leen ay xeer duma leen dem ñibbi gars yi porté woon ci lii naa ko jàpp ci lii naa ko jàpp ci lii naa ko jàpp ba mu jeex affaire bi amul benn secret li barki ci Mouhamed le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 tey la tey adduna baa ngi seetaan dañuy ma jëkk si yaayu Sonko sunu borom mu ngi dénk Sonko Sonko la jeunesse sénégalaise mu ngi dénk Sonko sa peuple libre mobiliser wu mobilisation boo xam ne jaroon na ko jaroon na ko ngir bañ troisième jaroon na ko ngir les libertés jaroon na ko ngir violation yi ñu dis yi ñu def ci disposition constitution bi jaroon jaroon na ko ci benn nit boo xam ne mooy lekk njabootam di lekk. mooy falu njabootam di falu mu jël waa Sénégal noot di def di dictature yëpp nit ñi tegul dara ci yoon mu bañoon démb nangu na tey seen mobilisation bi jaroon na seen mobilisation bi jaroon na teral gor yii ci sama gannaaw gor yi nga xam ni amaluñu kenn xaar ma yàlla topp nu kenn ndaxte day bu bàyyee fàttaliku soxal waaye bàyyi yaa ngi nii waaye fàttali ko wuñu kon jërëgeen jëf waaye yeewee askan ñu ngi demandé ñu jël seen matukaay am seen fulla am seen fayda fii la démocratie am ñii ñooy libéré le peuple ñu góorgóorlu dem ci inscription yi révision bi nga xam ne moo exceptionnel ba pare def ko benn mois ma bëgg ngeen préparer jël seen disposition carte bi mooy affaire bi li ci des dem bu leen kenn duñ bu leen kenn nax bu leen kenn def ndax ay gor ngeen ba pare kenn mënu leen a jënd kon nag jàpp leen ci Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi moo nekk fii